asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokk yi Cheikh Moussa Fall Falilou mooy joxe ay kàddu yu bàyyi ko ci kilifaam Cheikh Falilou Fall jëwriñu sëñ Modou Aminta. nee ñu muy njabootam ji fi daje. lii kër moom kër sëñ Modou Aminta. Seydina Usman, bu ñuy Usman Seydina Ousmane Gueye ak Serigne Falilou Gueye ak Baye Fall bi yéen ñi nga xam ne yéenay mag yi jataay kat ci misaal yéen da ngeen di mbooloo moo xam ne kenn ngeen. bëruñu kat Seydina Ousmane. waaye tamit wii suñ falilu waaye suñ falu ak Baye Fall kat day mel moom mii di wax ak kii koy wax loo nee na moom bu kàddoom jibee kàddoom lay waxee buñ tuddee fallu dudd nañ Baye Fall waaye bu ñu woon Baye Fall képp itam ka tudd falilu du leen mere day xam ni moom ngeen tuddaale moom ngeen wooyee moom ngeen wooyee tur woo bii na kon fu muy tàmbalee moom danaan alhamdulilahi rabbil alamina amoon na yéene ndax moom itam amoon na yéene yi keroog altine la ko sëriñ waxoon bis bii keroog kon nag altine talaata àllarba alxames xanaa kon tey la juróomi fan nee na bàyyi woon na xel lool jotaay bi nee moo tax na kon suñ falilu seen guddee gii nee day mel tam moom nee na moom ngeen ko defal ndax bu ngeen ñëwoon ci ginnaaw takku saan nee bu wax ak nee kon day mel ni guddee gi am na lu la ci ñun kon nag soppee sëriñ Falilu yii nee yéen kat da ngeen ñuy jàppale nee loolu sëriñ Falilu ngay wax nee joxe sa lépp nag wëlbatiku nag ni naawut lu ko dëgëral day mel ni ni mu ci def noonu la nee lii lépp dooleel la rek nee na daayir yi àllarba yi dajale at yi yóbbu ko fa sëriñ bi lépp bëgg ak jàppandal rek la sëñ bi la ñu xam ni daa boole saayir ak baatin at yi ñu dajale ñu waa Cheikh Rafaal bu doon guddee bëccëg nee day ni ni baat ak baat bi moom mooy aj yi ci Sëriñ Tuubaa la jëm jëwriñ ju nekk nag di ko laaj waaye moom tam la koy laaj laaj lew na ko doomu waaye dam bëgg nag mooy aj yi jii mooy dajale laaj ko murit yi mu teg ko ci loxol jiwriñ yi Cheikh Ibra Fall bi mu teg ko ci loxol jiwriñ yi sëñ Tuubaa bi nee bu ko defee yii ñuy dajale di mu ko jox nag ñun tam li dal sëñ bi moonu dal dañuy bëgg sëñ bi du laal addi yi ñee yi nga xam ne moom da koo laaj ngir Cheikh Ibra mu jëm kër Serigne Touba day bañ dara meegi day bëgg a àgg. nee loolu nag ñu ko koy jàppalee ñun murid yi. mooy mooy mooy ñi ngeen. mooy ñii ngeen def nag. addiya la ci jigéen ñi. nee na addiya ab tër la ci jigéen ñuy sëy. sëñ bay. murid bi da koo war a joxe. waaye kenn joxu sëñ bi dara nag. am na ñoo xam ne ñoom duñ far sax joxe addiya ñoom. ñee ñoom ñoom bu ñu dajoo ne sëriñ ca jaba. mu gàntu ay mbuusam. ñemewuñ ko wax daal ndax sëñ bi daa jaboote. te do doxoo ko lu ko tee dox doxi. wuti lu jox jaboot bi. mooy lii ngeen di dajale nag. nee fi mu ne ñii nuyu woon ngeen ca màggal joxe fa ba na woon nit indi sa nangam nag. waa ngeen ñii sëñ Fallu dañoo am jom. xam ngeen ni kër gu bëri rek day. nga xam ne mbooloo nekkul ci seen di la laaj ngay joxe. suñu kooka. bu soo moom waa ngeen ñii waa ngeen daaneel. nee loolu nag. kon kër gu leen su borom ndeke jekk nag. te mu yàgg ba tey. ba ci jiw yi ñuy toog ngeen di ko indil addi ji. mooy ki ngeen di wooye ab nga xam ne li ngeen di wuyoo sax a doy waar mooy soppe suñu fan bi. nee na ab xarit neex na. nee diw sama xarit la. diw sama wóllare la. nee lu ci nekk ab cër la. ca xol kam nekk. ginnaaw moo ko def. waaye lu muy réer nag. ndek woo ab soppe moo gën a rëy lool. moo gën a rëy lépp. bu dee fa suñu borom. kam def muy ab soppeem. def kon ne lu ma def yaa tax ma def ko. danoo wax xisaaru laa. ni Moussa kalaamullah Ibrahima ñëw ñu ko Ibrahima xalilullahi xaritub yàlla bi ñooñu ñëpp nag leneen xeej ji xeej kenn ci ñoom doxul kenn ci ñoom taxul suñ borom bind asamaan wala mu bind suuf soppe bi moom da ko ni lu ma def rek yaa tax ma def loola kon ab soppe sëñ Faliilu moo gën a soor de. te yéen ñii toog ay soppe ngeen. waaye nag nee eh, da ñoo fekk si nag. ñu doon ay soppe. nii yéen nii yéen. bu yàgg nag. rawatina nag yi di wax ak yéen di Cheikh Moustapha Fall Faliilu. fi ne dañu woon siiwee. ñëpp bokk tudd noonu nii ngeen tudd. bu ko defee ñu noppal ko. ab xeexkat moom. loo ko sotlee lu ñuy ñëw rek lu ñuy ñëw rek dana ko yëg te dëgg dëgg jàkkaat ba nag day xàmmee ku koy sot ak ku koy sotle ginnaaw boo foree aw yet ba am yar jox ci may feexal bu ma féetee kaw bu ma daanee ma féet ba féete kaw nga wàññil ni ma. bu ma songoo. nga jékku ma. ba noppi naan ma sotuma la. nee dama ko nangu de. ab beexkat day xàmmee ka koy sot. ak koy sot de. waaye yéen day ñoom ñii ngeen fekk si xam nan ni. yéen day sotti leen leen. da ngeen ñuy liir sopp yi toog. Cheikh Moustapha nee na loolu ñoom xam nañ bu wér. nee na waxuma dara waaye li ko gën a neex ci yéen. mooy melokaanu ndaw ñii. nga xam ni ko dañuy xam ni kii ci waa Daaru Géey la bokk. ko ci aw melaw. ba ci kodd ba ci seen jëf yi ak seen wax yi ak melo yeeg yooyu yëpp nag lu neex a neex sëriñ bi la kenn mën na ci te nag kenn wëlbaliku mën leen ci jëfal sëriñ bi dolli ci loolu nag mooy defal sëriñ bi ak bëggam ba noppi mel na sëriñ bi bëgg nee kenn ku ne xam na ni defal sëriñ bi ak bëggam neex na fi sëriñ bi waaye neex na ca ko koy def itam waaye kaay wa dëgg-dëgg la. da ngay defal sëñ bi ak bëggam ba noppi. mel na bëgg. mel na sëriñ bi bëgg rek. loolu mënu gën ñun soppi yëpp. saa borom moo bind ko fa baaxal ko yëpp. topp ko ba ci soxna yi nga jàkkaarloo. nangu nangu gën a liggéey. fi ne nangu ngay liggéey. ak nangu ngay wuy si baatu ndigal bi. ak nangu ngay wuy si baatu ndigal bi. boo ñëwee itam. boo ñëwee itam. melawoon taamu woon ci amul. loolu daa yor jëli jigéen la. noonu la doon de. daa yor jëli jigéen. daa yor jëli jigéen. xëy na da ngay xëy na jëf jëf. la ngay xëy na ci moom. mooy la gën ci moom. mooy jëf ji rek. te ne muy jëfee. mooy na xool ba mel. bari na ko tay lool te la muy def. ba noppi ñaawal ko. te fekk na. la sa bët tege. la nga ëppalee. muy xool ba. noonu la mel. kon ñiin kat ñu suñu borom baax a yéen yéen la. nee na am ngeen dimbal lool. loolu suñ fan wax ni alhamdulilah rabbil alamin. su ngeen làmbee seeni xol rek. askor moom buñ seetee naw lay borom. yëpp. séddu ko nag. mu ne jàkk ab turam. kenn tënku ko ci génn wet. faaw kooku moom nga faral gëral séddale. suñu borom dina xam ne jaamam yii. meewuñ ko. nee na ñu sant suñu borom lan la. nee ñoom yii la bokk yii. kon nag taxawaay bii. nee na fii ñii fi daje. sëñ Abo Fall Falilou mii ngi ñuy toog. sëriñ Daam Falilou ñii. kii moom sama mbooloo Fall bi ne seet. waaw waaw waaw soxla moom la ma la moom ak biir bi daal bii. nee soxla na koy moo soxla moo raa bokk lépp waaye nag ci biir daal bii. suñu yaay yaay yow. suñu nijaay suñ màgg yow ñii toog. nijaay mooy mooy nijaay. nijaay mooy nijaay. ki mel lu nekk fi yéen rek. bi ngeen ñëwee naan naa ni fekk ngeen fi lu mu toll ndax da leen bëgg a fàttali moo tax du ma ne fekk ngeen fi lu ko waaye fekk ngeen fi nag lu muy mel li ne fi yéen sëñ Falilu yaa ngi sëñ naa Ousmane ak sarab yu baax yooyu li nekk fi yéen nekk biir murid di loolu ne fi noonu. loolu mooy farfarloo. damaa lépp li moom boo ko toppee. day sori. waaye kon li ngeen yor lan yor. kon suñu alal dina mën a jàpp soo ñun. xolam suñu seet bi bu ñu ciyee. nee du jëf ji rek. jëf ji waa ngi. jëf jëfi ngi. ni kii di wax ak yéen jéeyu leen. ki koy wax loo yi. jéeyu ko de. jéeyu leen yéen itam. Ah, jëf ju nekk. ci kër Seex Ibra Faal gii. faw seen jëf dina jafee. ma nga tàmbalee ci seen maam ya. waajur yi toog ak. ya dem ak. yi teewul. ñëpp xam nañ ñëpp bokk nañ xam ni. jëfi waa ngeen. jëfi ba la. du dëggu ci ñoom nag. nee lu rek. nee bu yeboo ngeen teqantal seeni xel. xeeti ndigal yi. bët yi bi nag yi ñëw. oto ba ëpp ci oto yi. ñeent yi ñëw oto bu rëy ñëw. wàcce ak toogal. nga xam ne mënul abdul ka daan naan. lii moom ci génn kër la ba ay ko. boobu kër nag. bu ko ñëpp sottee. wala ñu sottee gën jëm ci moom. di seen kilifa. la kooku bëgg naa am de. kon daal sëñ bi nee na akoon sëñ buy jiyee yàlla ñëpp dund loolu moo jiitu ñuy ñaanu sëñ bi ndax moo ñaanu ndaw waaye ñu li ngeen àndal dañ leen di seere ya, rek waaye fekk na ñii ñu def nag ñoom mooy defin wax dafa am bis boo xam ni koy def fii ci ginnaaw ko sëñ Kamal Fall sëñ Abo Fadilou. Ah, Cheikh Moussa nee na mu am ñu mu àndal ci guddi gi dem fa. waaye murid yi baax doon waaye murid yi baax doon mu leen bëgg. nee ban bu jógee. nee na ma téeméeri ñu yàlla. nee na ñu mën di téeméeri nit ñëwaat nañ fa. suñ ginnaaw suñ ginnaaw. ci ay borom kër. ndax da nga ndax daa wax ak ñoom wax yi boo xam ni. borom kër bu ko dégg. da ngay yaakaar ni yaa moom wax ja. ndax dañ faa fekk du lay kese. waaye waaye ñëpp kese day la kese. te kàlla moom. te kàlla fi moom. bokkule at. des na ba jaaw ba weex tàll. day ndaw. karaw dina ñuul kukk. borom ni mu kàlla. ñee nag seen karaw daal ñuul kukk ñoom. nii yéen. te nii mu kàlla te gisuñu ko mel na mag nag. nee mu ne mu ne magi carte bi nag. suñ defee lu baax it defuñu lu wóorul. lu wóorul lu wóorul. ndax mbooloo mu toll nii di ay ndaw. daje mag ñëpp tëju. te kenn ñëwu fi. màggal leen. màggal ne bu dajaloo ba yëngoo. génn taalandoo carte bi. génn taalandoo carte bi. loolu aw ay lay doon. loolu aw ay lay doon. bu ne ko mi daal nga meññ leen. ñu daje fi ba. dem fa nag. ba xam. li leen tax a daje. bu dee aw yiiwa. nga dàgg leen. bu dee ab safaan. nga dàgg leen. waaye kenn jaaru fi nag. loolu daal gàcce la ci ab quartier. te nit ñi moom la ci am ñoo xam ni. seen xol yi daa fees dell ak wu ñëw bu déggee dëgg rek dañ koy daal di nangu mais ban demee nag te suba suñu ñëw nii moom daal ba fa sëñ bi jugee mboolem kër yi jigéen fii kër borom kër gi ñëw na fa xam ngeen kon lan ngeen doon wax ñoom dégg nañ ko mooy li bëgg a wax ci seen ndaw ñii nag dina wan ne kon

ñeen ko gën a rafet ak xam fopp nag suñu fal neen loolu lu jublu ci wax ji neen ndaw dina doon ndaw loo ni bari na ku ko jaaw ba weex daal hmm. ñu ni mooy noonu ci jàkk ji wala ñu ni mooy imam ba wala ñu ni sax mooy délégué quartier bi xam ngeen kañ la baax bu yàggul waaye lu ne def na ko nag daa dem ba ba ko mu ne naa ba àdduna may itam. waaye li leen dal yéen waa ngeen dal ko moom itam. jug rek. di daw. fas yéene jëm fa nga war a jëm. tamit fa gënal suñu borom. loolu ndimbalul yàlla la. lu mu leen baaxee. ci yi. ak ci maam ya. ba ca maamaat ya. fa mu jógee daa sori lool. kon sëñ baa ngi doon lee dàgg yi boppam nag di leen dàgg góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi di leen xamal ni dara dara ñëw ci biir fii ñu nekk lu dul sëñ bi rek nan foofu wuti sëñ bi lépp a ngi fi nee daa am ku doon nekk ni ci waxukaay yi ñu yore rek am day wax ji yàggoon. nee daa xamul doon na déglu sëñ Saliou wala daa doon wax ji yàggoon. ma nga doon ay wax yu bari lañ. nee daa gis wax yu bari lañ ca loola. aboo géer. ab sëñ aboo géer. mboolem jëlu ñu newoon ci daara. mboolem jëlu ñu newoon ci daara ja. nee bokk na ci ña nga xam ne sax ab guddi boobu ñoo ko yàq. ku nekk li nekk li. ndaw yi ci biir rek. Ah, fu ñu jaar ak sëriñ bi. Ah, ak sëñ bi ni ko suñu borom baaxee. moom Serigne Touba Cheikh Saliou ñi ngi ñaan su borom dolli ngërëmam ya ni baax ba xolum ndaw ñëpp tàbbi ci moom moo di def ak xolom dara ñëpp ci woon lu may wala bokk na ci yéete ne bëgg a taxawu ndaw yi defal leen nga xam ne mën nga ci aj jaajee lu bari loolu lépp nag ndaw yi bëgg a baax ndaw ñu bëgg a baax la ko suñu borom di tànnal muy ndaw me mel ne ndaw yu sëñ bii. nee loolu neex na lool. nee ko baax ku baaxul. nekk waa ji gën a bon sax. kooku ne yaa bon. mu gàtt ci xolam. la muy bon bon bon yaa baax ku gënal. kon nag ku baax le. nee lu ne war nga ko ne wane sunu borom. ci ay jant nag. ci mujj jamono jii ñu ne. neexe yi dafa bari lool. kon sa alal bu bëggee baax. te noonu ko Serigne Touba Cheikh Sall yi waxee. boo ko joojoon ci moom. moom suñu borom. mu gàttanu la. ku suñu borom baaxee. ndaw ya ci jëm ci suñu borom. da nga yilif leen. faaw nga sant ko nag. kon li ngeen tuddee suñu bopp. di soppi. lépp ci sëriñ bi ci sëriñ jëm ci moom loolu sëriñ bi sax nañ suñu borom kenn du ko kawe ci ko suñu borom nekk ñu tuddee ko Touba moom dëkk bii yoo taxaloo rek nee ba jëm soo yee démb ba tey yéen a nga waajal seen bopp bi asamaan sa ji di ajuma yéen a ngi waajal seen bopp ma. am na ñooñu nag. am na ñooñu nag. daan bàyyi ko Touba ñoom. daan bàyyi ko Touba ñoom. di waajal ko ma. di waajal ko ma. dugg coot yi dem football yi. loola nag. noo ngi jot ni. bu doon nit ñi dëgg. bu doon bu doon mais bu doon njëriñu dëkk bi. noo ngi jot ni. loolu dina faju. nee dafa am bis ci Touba Porokhane. muy wax si Ebo Fall nii naan ko. ndeke nit ñi kat. li tax ñuy posé candidat bëgg yor réew mi nekk njort rek la dama yaakaar ni bu ñu yore réew mi man koo defar waaye mënu ko man ni bu doo woon Touba dinaa posé candidat nee bu ma farlee nee bu ma gañee dëkk damay tas ba tas ma tàmbaliwaat. balaa kenn dëkk. balaa kenn dëkk. ñu sàrtonte. soo mënee loola. soo mënee loola. dëkk. soo ko mënul ma génne nit. xam nga njot njot lay wéy. nee njot lay wéy de. waaw. boobu la boobu la nee boobu la ko nett si yow Faal. nee damaa xam ne sopp yi jug ngir siyaare ñoom. ñoom day dul football yi. seen xel ñëw ci loola. jëm bu ci borom dëkk bi jëlee. nee te bu ci borom dëkk bi jotoon nag. na jot ni. dëgg dëgg. kon football dina day. xëy na xëy na xëy Touba. dem football Mbàkke. jël si Touba. nee man di ñu dugg sama kër kon. Ah, xanaa yeneen kër kay. ginnaaw da ngaa koy ba fi di sëñ Touba dindee. la wuti. boo jënd si. safaanam tey lay doon. ak bu ëllëg. nee loolu tamit sama kër mukk man suñu saafara fële yi. Ah, xanaa su ma ko téyegul rek. loolu lépp la. nee loolu lépp la si Ousmane. ak dàggale ci ñun. ak dàggale ci ñun. dàggale ci soppi. dàggale ci soppi yii toog. loolu leen boole xel rek. loolu leen boole seen i xol. ni ngeen def ba tuddee seen bopp loolu yi. ni ngeen def ba tuddee seen bopp loolu yi. noppal ngeen ku doon ci yéen dara. noppal ngeen ku doon ci yéen dara. fu mën a dal noppal ngeen. day waral. day waral. andi ñu ci sëriñ bi. noppalu ci. noppalu ci. sëñ bi noppalu. sàmm sàmm lépp ànd. sàmm bu jur nga ànd. lépp. fu ko neex def. fu ko neex jëm. ndax day noppalu. waaye fu ne ak jur bay jëm fa nag. mu daw ba sax rek. kon noppal ngeen sëriñ bi. waaye faaw ngeen faaw suñu mais borom def allah bi. ci bu kon jërëjëf jëf. nee moom daal xam ngeen ni ci xol sëñ bi. xam ngeen ko de. mooy mu jàpp muritam yi rek. yéen a ko tee a ko tee naan. yéen rek day bàyyi xel. ndaw yu mel ni yéen nii noonu la ca kaw yoon wax. ka seen kanam. lu ñu buur jëm ci moom. du noppalu. yéen a dina la bàyyi xel lool. waaye dalal ngeen xelum. waaye dalal ngeen xelum. waajur yi. dana xam ñoom seen yaakaar tasul. dana xam seen yaakaar tasul. te lu tas mukk nag. incha allah bii. sëñ baa ngi ñaan suñu borom. la njëkk ci ñaanu ndaw mooy. na dund de. ndax yi ñaan yëpp. ku dundul du ko man waaye bu dundee nag. yàlla yàlla wér. yàlla wér. mooy tax mu mën a defal suñu borom. ku wér moo mën a jaamu. ku wér a mën a liggéey. waaye bu wér yi itam. yàlla mucc nag bu muccee luy jël ndaw ña bakku fa waaye yàlla jub nag bu jubee lu kaa ñu baax ñi am mu am ca kon sëñ baa ngi di ñaanal ak dund di leen ñaanal ak wér di leen ñaanal ak di leen ñaanal ak jub nag xocc rek ba tege ci yoon ba ànd ak ko waajur yi ci seenu bëgg ndax ñoom bàyyi nii ci àdduna rek lañ bëgg ci waaye kon sañoon nag bala ñoo ba ci àdduna melakaan lu bëgg nag des cee jege bu ko defee seen jot rafet xam ni bu ñu tëddee bàyyi ñu itam bu ñu tëddoo bàyyi ñu itam ñu nekk ca la nekkoon loolu la waajur bu nekk di ñaan kon jërëjëf jëfati nee moom daal daa xaw a guddi ci yéen. te li leen sëriñ bi di wax moom. lu ci doyal de. te yéen itam du ngeen ci doyal. lu dul doy na si Ousmane. loo ca am doy na. nee na xool doon yu rek. nee moo noflaay sëriñ bi mooy sëriñ noflaay. te loolu li moo ne jëriñ tey jii ak ëllëg jën jëm. yéene te jàmm rek. kenn ku nekk. la nga yéene sa bopp. na nga ko yéene sa morom. bu dee leen rek ah. mu jot ca. Euh, bàyyi la yow. Serigne Touba Cheikh Abdoulaye Mbacké. Ah, mas naa wax waa Hizbut Tarqiyyah ni leen. ba tey wax jaar ci waxukaay yii. xulafaawul arbaha. mooy ñeent ñooñu. mooy ñeent ñooñu. Babacar Omar Ousmane. ñoo wax ni ki tax ñu bind lépp sallallahu taala alayhi wa sallam nee sallallahu alayhi wa sallam màgg waaye moom ci nuyoo ba la ko indi dani asalaamu jàmm xaleykum yàlla nekk ci yéen wa rahmatullaahi taala wa barakaatu ak yërmande yàlla ji kawe. ak yërmande yàlla aji kawe ji. nee daa gën a màgg. nee daa gën a màgg. ak yërmande yàlla rek. yàlla aji kawe ji. daa gën a màgg yàlla rek. nda doon wax ko nag du tee yàlla màgg. nee hmm. na waaw comme sëñ Fane mu yem foofu. ndax alal fu mu jëm. te ñu baale xolo ko. waaw. bu ko def nag. mais bu ngeen ko def nag. bu dul fi yàlla. kooku yéen a seen i xel di nekk. boo ko jëndee oto. ay oto rek kay nekk seen xel. boo ko takkee jigéen. ay jigéen rek kay nekk seen xel. boo ko dundee ci kër gi. luñ lekk rek la ñuy xalaat. waaye boo ko joxee suñu borom. yàlla rek kay nekk ci ñoom. te yàlla ku nekk ci yow. am nga ndimbalal. mais su yaakaar jaam yi daa wax ni adduna. adduna. ku la ko xamal. ku la ko xamal. sonal na la. sonal na la. ku la xamal yàlla. ku la xamal yàlla. dimbali na la. dimbali na la. ku la xamal liggéey nag. ku la xamal liggéey nag. noppal na la. waaw soo ko nag liggéey bi ngeen indi. kon nag liggéey bi ngeen fi indi. indi ko teg ci loxo sëñ bi. indi ko teg ko ci loxo sëñ bi. raw raw na de. ñu waxe woon. ñu waxe woon. waaye yéen a ko moom. waaye yéen a ko moom nag. tey jii ngeen koy doog a moom. tey jii ngeen koy doog a moom. ñoo ko bàyyiwoon ca mën a ñàkk a def. ndax doo ko ci mën a ñàkk a te du la gënal. waaye li ngeen moom. raw na koo fee ñu jëm. dugg na te yéen ak moom ñun dafay nekk. moom tool yi yéen a ko toll. lu ngeen kon ànd ak moom sëñ Ba ngeen ci gën a soññ rek. gën leen a am rek. gën a boole seen bopp. gën a yéegante jàmm. gën a bëggante rek. te xam ne moom li ñu war a am. sama borom laaj na ko. ci salaalu salaam. jox ko Sëriñ Tuuba. Sëriñ Tuuba it lu mu gën a woon lu nekk. jox na ko Cheikh Ibrahima Fall. ñeen ñun nag ñu ne waa Kër Cheikh Fall. kon nag dafa def suñu def bu baax. xam ne li mu bëgg lépp sëñ bi ngeen la ko defal. ndax indi ngeen li ngeen bëgg. mel na it nit ku sëriñ bi bëgg. kon sant ni yàlla bu baax. nee nañu yàlla di ñaan yàlla suñu borom. mu yokk seen i fan. di wéral seen i yaram. doon li wërsëg bi. te doon la xéwal. sa fan yi ci ndigalu sëriñ bi faaw rek. ñu fay ñëw nag. nee li yàgg fay ñëw nag. yàgg ñu fay fekk rek. nee yoon lu ngeen fi mën a ñëwee ci. na leen gën a yoon mii ngeen weesu. ci barke Cheikh Modou Fari bi seen soxla. nee jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. kon bisimilah kon tàllal leen yéen ñëpp rek. loolu leen tàll. waaw. tàll moom. waaw. Thank you. La ilaha illallah ngir ngeen di jot vidéo yi am solo yi bayiko fi ci sen sen daru berefal TV da ngay beus fi ñu bind sabonné ba noppé nga tek ci kolos bi. La ilaha Darou Bayré Fall TV, la première scène qui valorise la vie et l'œuvre de Mam Cheikh Ibrahim Fall.